alhamdu lillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim barke borom Tuuba salaamaaleykum wa maa ngi jaar baax a baax maa ngi jaar baax maa ngi baax a baax tey ndokkeel lool xuus mi ñu xuus ba yegg ci fii ci lépp di ngëneel yegg ci cat li li ci yàlla digle sàllaaw dana ko def li ci yàlla digle te def lépp def ko addi Seexul Xadim fanweer yëpp na dem ci loxoy sëñ bi ñu jaar baax bàyyi fi euh, di jéemati rek pas-pasu ànd ak yéen bi fu mu daa yell ci ñun ci lu ngeen nekk lu ne ñu ne ak yéen waaye fa ñu fa ñu yegg ca foofee nekkut fa ñu bëgg a yegg fa ñu yéenee yegg lu njëf yu ne ci yoon lekk la ne waaye fam war a yegg sallaaw yegg kii sufa ndax njéem dañoo war a ànd bi fu mu suñu yéene mooy lu ñu jëf tey jii mu tàbbi ci tànki ëmlu xaddiim nga xam ne lu ñu jëf tey jii day toog topp tànki ëmlu rek di jëm kanam waaye nag ndokk lépp yéena lépp yéena bu yegsee fii yéena ñetti fan yi màggal gi képp la woon waaye yéena ci teg la ngeen ca teg dama koy wax saa su ne dama koy waxaat dama koy waxaat da ngaa tiimoon lépp mel na ni bool leen ci ajjumay at mi bi lépp fekk ñu ci kon euh, sant nañ bu baax ñii nga xam ne tamit ñoom nga àndal liggéey bi duma wax mukk fàtte leen ndax damay wax ne loo yéene woon a yéene lépp dox jëm kanam te ñii nga bàyyi sa kanam am nu ñu mel sallaaw fii ñu yegsi duñ fi yegsi ndax tënk ak nangam ak nangam mën na ca am waaye dëri ci amut tënk amu ci jamono june ñoonu naan def leen lii rek baax na ñu cay jéem te am pas-pas wéy ci jéem tey jii euh, juróomi carton yi Presea la ñu ak ñeenti carton beurre Jadida bu 5 ak ñeenti carton yi corne bœuf bu mag ak fukki carton yi meew. ñeenti carton yi tàndarma paquet ak juróom-ñaari kilo yi fromage ak téeméeri paquet ndox ak junni ñaari junni mburu daa am ku ma ko wax mu ne waa loola bari na ma ne ko déedéet bëriwul fa mu jëm a tax bu dara desutoon suñuy poos it lépp luñ fa yóru war a yóbbu yëggut fa mu war kon bëri moom xamu ci Euh, nañ ko ànd rek mooy wax ci ñaan nag mu yàgg fi lool nañ na fi yàgg lool kuy wax ci ñaanal ko dama naan ku ko ñaanal man ngay ñaan ñun ngay dimbalee ndax ndax ndax ku ci ne ci ñun it day jàpp ne ku ko ñaanal man ngay dimbalee ñoo man ngay dimbali kon yàlla nañ fi yàgg gën yàgg lool bu subaale san nañ bu baax gërëm nañ bu baax ci turu Baye Abdou Pouy Touba Ngoye gépp a ngay sant tey segere di sant lool ngeem seen jëf jëfi séréer ñoo ñu ci bi seen biir du lu man damay wax nii dañoo aadawoo di wax ne def leen laaj leen nit ñi liñ man te def ko fu ñu xam ma ne diidit ahmadu du ma yem ak moom ci defal ko li ma man li ma mun ak li ma mënut laa koy defal ndax ahmadu xadim jomb na ku yàlla bind te yàlla mel na ni ahmadu boole nañu ci boppam maa ngi tub di waaw mbaa bokk suñu yéene jépp moo jeex ci biiram suñu guddeeg suñu bëccëg suñu yéene suñu jëf yëpp ci ahmadu rekk la joy kon bu sobaal yi ñu ngi lay seereel ne tubaango yëpp sant nañ bégg nañ te di la ñaanal lool salaamaaleykum wa rahmatullah. yëpp bokk taalibe bi di leen siyaare di wax ne taxawaay bii du du du guleet yàgg na maa wax fii ne séeréer si jël nañ li ñu gën a bëgg it ko ki ñu gën a bëgg jël gën a a bëgg kon loolu fii la seen bëgg wér ndax séeréer bu comme jox mburu rek bëgg na la kon jox nañ sëñ bi li gën a bëgg waaye sëñ bi dana dana li ngeen gën a bëgg lépp la ci gën teg seen loxo incha allahu taala def ko def ko yéen nag moom seen wax seen njàmbaaral moom dama koy wax waxati ko waxati ko te sëñ bi rek laa ci yéem ndax liggéey bi bi mu doxee ba toll fii loxo yi ñu ko yëkkati woon xam nañu attantuñ ko la suñu dem ba ci séeréer ga saq ci ab saq di dugg ci seen biir boo xam ne lu ñu tëla ñu def ko loolu rek laa jàppe seen bokk gi waaw dañ cee dugg sombi ko mënatuñ ko naan ndax liggéey bi yaatu na sëñ bi dem ba ci séeréer mu saq ci mu saq ci ñu ñu dëgg di ko dugg ci seen biir ngi liggéey bi mën a liggéey bi di dox doxee mu rafet ku ne xam ni seen taxawaay mënu cee ñàkk ndax fépp fi liggéey bi toll ku fa gis leen fa xam fenn fa taxaw dañ ko fi mat sëkk dara lu cee cee xebar du ci am kon yéen tànnu sëriñ bi ngeen mu jël leen dugal leen ci biir kër ngeen di ko liggéeyal kon alhamdulilah rabbil alamin nun waaye alhamdulilah ne yéen ñu ñaan lii euh, dem ba suñuy siraat ñii di ko def suñuy suñuy siraat waaw waaye nangu gi moom am na ndax boo amutoon lu nangoo lu nangoo dugg fii fii sëñ bi sëñ bi ku na mun na mun nga liggéeyal ko liggéeyal ndax man fa day gor soxal ko liggéeyal mu fay la waaw li wax léegi nag ñun sëñ dañuy jëm ba rek waaye ñun mën nu ko mën nu ko mën nu koo liggéeyal waaye nag nañ def liñ man jéem liñ mën tuddi ko yéene ndax Cheikh Fall kenn ne kon Mbàkke pexe amul de noo fi ne de a nga ëpp nga nu sëriñ mbëtun lay donga waaye noo fi ne de ba nga <laughs> donga waaye Mbàkke noo fi de ba nga jéem ci nun rek waaye nit bëri nit ñi jëm ci moom ba dee rek waaw te ku def ba dee danga ma tam wàcc wàcc nga waaw su boobee moom nag ak baaxam ak yaatoom ak kàttanam fo fo fa mu joti moo ko xam waaye ñun foofu xamuñ ko suñu jotu fa waaye moom jot na fa taxawal yéenam àggale fa xam ne nan nan fa àggale luñ tëli rek bal noo tël bal noo tël rek nan ko tontu bal noo tël ci lu ne nan ko tontu nanu féete fépp amiin waaw nanu féete fépp te xam ne xam ne def nañ ko wër na nun euh, sama kaas gi ak ñu mel ni man benn njëriñ amuñu ko loolu si jéemal géey sëriñ bi waaw jëf liggéey sëñ bi nag kon lu ñu ci mën sëñ bi lañ ko tafee xele waaye du seen kattan du seen dool seen xel kon ligi lii ku ne xam ne ne benn waaye rek toog di ko xalaat dañ naa ko jógal def rek mu def lu ñu leen digal rek ñu jóg def la lii dañ leen di kondir rek suñu mee seen kanam ngeen di def kon loolu dal na xel lool jërë ngeen jëf isakum la xeyran